la dernière fois danga ñëw nga toog fii mm-hmm. nga am benn wax boo sànni nga ne Macky Sall fi mu matee fi mu nekkee dëggantaan président foofu la foofu la war a demee mm-hmm. nga ne Macky Sall mënoon na mën nañu mënoon nañu gunge ba bu beaucoup de gens ont compris que vous avez jeté un pavé dans la mare ñu génn ci loolu ñu jékki-jékki ñu commencé naan dañuy reporter élection ñenn ñi naan da nga ñëwoon def ballon de sonde man mi sax boole nañ ma ci te man ba ngay def déclaration bi yëguma ko hmm. dañu dañ doon def ballon de sonde ñu jékki-jékki ñu commencé wax waxu présidentielle euh, Boubacar Camara def na ci un lon argumentaire justifier lan moo tax ñu war a reporter hmm. nan lañu ñu war a reporter bu ñu reporter yan institution la ñu war a teg Souleymane Jules Diop ñëw ne ni mu xoolee nii présidentielle mënu am 2029 Euh, nañu xool nañuy reporté euh, Abdoulaye Bibi Baldé mbiru report bi tàmbalee dox ba mercredi dernier président de la République Macky Sall en convoquant en signant le décret de convocation du corps électoral du du du du du du, du, du il il mis un terme est-ce que la convocation du corps électoral du collège électoral est-ce que yow mettre na un terme ci doute yoo mënoon a am par rapport à la tenue de cette présidentielle là. man mosuma am doute mosuma am doute li ma wax tey laa ko gën a wax dama ni Macky Sall bu doon fruit ma ni tey dafa ñor xom expérience yu yor réew ak gérer réew fi mu ci toll nii guddi yi ñu toll laa wax bu amee ci Afrique bariwul. xam nga lu tax li xew ci bu mu jiitee réew mi moo tax bi mu jiitee réew mi deuxièmement dafa am coronavirus crise mondiale mu géré ko ñu jóge ci loolu mu am guerre en Ukraine fekk mu nekk président la commission de l'Union africaine ñu jóge ci loolu mu am bouleversement yoo xam ne en interne mosul am dans l'histoire du pays muy l'affaire Ousmane Sonko loo xam ni je dire mën naa ni en trois ans de crise armée Sénégal institution Sénégal état Sénégal président la République Sénégal expérience bi ñu ci am mën a état Sénégal gagné na en expérience ak ci capacité d'action loo xam ni si téeméeri at mënoon na ko bañ a am moo tax ma ni Macky Sall fi mu mën a yëf yi fi mu téye yëf yi fi mu amee réseau partout dans le monde fi mu ëppee doole foofu lay demee loolu laa wax tey laa gën a wax ni ak kuñ fi mën a teg tey fii ak 2029 li fi Macky Sall mënoon def yow mënoo koo def te pour nga mën a def lu baax sax faw nga doon koo xam ne ni Macky Sall bëgg wóolu la jàppale la teg la ci yoon. attention loolu tey laa ko gën a wax. attention xam nga lu tax. Hmm. dañu nekk ci monde bu complex nekk ci réew moo xam ne dafa amaat beneen population bu bees. danga wax baax li ma nekk ci contexte bu particulier ñu jëm ci foo xam ne nii diggante safara ak essence la mooy réew mi war a am pétrole ak gaz ci monde boo xam ne nii ñu ñu wër tey Burkina Faso Mali Niger ñu ngi forme benn con fédération contre la CEDEAO foofu lay fi toll Guinée Bissau gis nga la fa xew te dara xewagul dégg wax donc li ñu wër yëpp crise la li ñu wër yëpp safara la jihadistes yi li ñuy tëdd di ko gént mooy agsi Sénégal pour am accès ci géej gi parce que ku ne xam na ni fi gën li gën a stratégique ci position militaire mooy nga am accès ci géej foofu la réew mi toll donc dara yombul réew mi ki ëpp problème mooy kiy gañe en 2024 mais léegi nag léegi defal ndànk léegi loolu laa wax loolu tey laa ko gën a wax loolu waxuma ko pour ni dañu war a reporter déedéet Macky Sall ci boppam xam nga tungu tungu ni du du taxaw ñu ñu ñu ko wax tungu tungu du taxaw ñuy nataal comme dit Idrissa Seck de sa bouche amoon mon oreille du lool la ko wax Idrissa Seck français anglais français wolofam yooyu maanaam ci làmmiñam la jógee dugg sama nopp maa toog ak moom ci fan yii fii ci këram. mais arrête d'attaquer euh, nu mu tudd l'usage de la langue euh, française par Idrissa Seck. non non non Idrissa bokk na ci homme politique sénégalais yi gën a neex. tubaab c'est-à-dire que ni muy waxee noonu. dafa ah. maanaam expression yi daf may frappé. nee na de sa bouche à mon oreille du loolu mais c'est une façon de. waaw li may wax nii man it li may wax ni li may wax nii sa émission bii nii laa wax fan yii la kër Macky Sall ñu ngi sol yëre bu weex ñu toog di waxtaan. à Dakar waa Dubaï fii fii fii fii. Hmm. li may wax ni ci gémmiñam la jóge dugg sama nopp da nga wax bi lu mu la wax ñu wax ci affaire élection bi report mun ma yërim ma ne fa am ah, mu ne ma man reporté wu ma tey reporté wu ëllëg dinaa signé décret bi tout les délais seront respectés li ma deseel Sénégal mooy organiser benn élection bu leer nañ loolu moom mën naa ko seede parce que moo ko wax ma dégg ko après élection bi mu ni ma dafa am lu ma admiré ci Abdou Diouf ma ne ko ah, mun ma kilifa boo demee doo geestu boo nekkee président la république ci benn réew boo fa jógee am na yoo xam ni boo ko defaatee da ngay gêner te man bëgguma gêner kenn li fan yii la am loolu li ma lay wax ni lu mu bëgg a def. moom ci ah mais li mu wax kay mooy dafa bëgg a organiser élection yi dem yoon. bu ko électionné bu ko organiser dem. il tourne le dos aux affaires intérieures du non, pays non te pas tourner le aux affaires intérieures defal ndànk foo mën a nekk ku la soxla laaj la sa xalaat xëy dañ ko ko jox loolu c'est le minimum mais je veux dire ni ma waxee mooy man duma ma kenn maanaam nekkoo ma fi di xëccoo nekkatuma faat di xeex nekkatuma faat mais mais mais Yérim les apôtres de la démocratie et des alternances démocratiques dafa am benn ngëm-ngëm bu ñu am. Mhm. mooy ne nul n'est indispensable. Mhm. gëm changement. Euh, Ablaye Wade bi muy dem 2012 dafa fekk un coup d'état inédit inimaginable au Mali mu bàyyi fi crise pétrolière njëkk yi yomb yokku trop pétrole bi cher mu bàyyi fi des guerres en latence Euh, problème bi Afghanistan euh, le problème euh, Bachar al-Assad euh, Syrie ah réew mi àddina bi tàng jër Macky Sall ñëw euh, y a beaucoup qui ont douté des capacités de Macky Sall à pouvoir gérer le navire Sénégal. Mm -hmm. Et pourtant Macky bi mu ñëwee il lui a fallu quelques mois pour enfiler euh, le manteau présidentiel. Macky la mu ngi nekk di dem et on redit la même chose est-ce que est-ce que quand on est démocrate est-ce qu'on a est a le droit d'être nostalgique. non yow da nga ci prêche un convaincu. Ah. man damaa bind livre bi nga génne fii ma bind ci chapitre tudde ko. la tache noire d'une troisième candidature sur l'histoire du Sénégal mu bind ci ni Macky bu taxawatee ni day doon ñetteel day def ñett day doon ñetteelu yoon candidat tache bu rëy lay des ci histoire du Sénégal te bi ma koy bind Macky Sall waxul ni day dem waxul ni truc boobu ñëpp ngi agité wu pour Macky Sall nekk ñekkaat defaat candidat donc kay man maa la gën a li ngay wax nii Macky Sall warul woon présenté dafa war a dem keneen ñëw maa la ko gën a gëm foofu parce que dama koo bind. te bi ma koy bind ñu bari ñu jegee ak Macky dem nañ ni ko gis na Cheikh Yérim Seck li mu bind xaw ma lan ak lan ak lan te et cetera mais man sama yoon newu ci parce que loolu laa gëm est-ce donc li am solo loolu du tee ñu constater contexte bi ñu nekk parce que bu ñuy analyser aussi faw ñu wax parce que waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko Macky Sall day dem dafa war a dem loolu ça veut pas dire que nga bañ a constater man li ma gëm mooy moment bi moo arrangé woon réew mi man loolaa gëm parce que xam naa capacité xam naa li mu mën xam naa fi mu toll léegi te xam naa défi yi nga xam ne moo nekk ci kanamu réew mi parce que défi yi nekk ci kanamu réew mi kii ñëw amul jot pour jàng. et si c'est déjà un homme du sérail. ah. et si c'est déjà un homme du sérail. d'accord si c'est déjà un homme xëy na dina tane. xëy na dina tane mais élection bi da ngaa jàpp ni un bi du sérail moo koy gagné. je ne sais pas kan moo koy gagné. élection bi jaxasoo na waxoon nga décembre bu ñu di ma wax kan mooy gagné élection bi. kan mooy gagné <laughs> élection bi élection bi jaxasoo na. non kan mooy gagné élection bi. danañ nañu wéy ci waxtaan ba ci kanam. nañu wéy ci waxtaan ba ci eh, <laughs> dama ko recevoir bon je fais beaucoup référence à notre émission Boubacar euh, vous avez dit tellement de choses intéressantes donc Boubacar Camara dama ko invité mu ne. élection bi mun nañ ko reporter de manière consensuelle. Mhm. bu ko Ousmane Sonko bëggee bu ko Macky Sall bëggee. Mhm. bi Boubacar Camara quitté am na sax ñun ay quelques leaders yu ne en fait c'est Macky Sall qui serait derrière euh, ces propositions euh, de de report parce que voilà il est encore euh, hésitant. il voudrait deux ans de de plus yow la moo si sa ngëm-ngëm. man de Macky Sall waxuma ni il veut deux ans de plus. man ne li mu wax mooy comme di Idrissa Seck de sa bouche à mon oreille <laughs> c'est-à-dire ci gémmiñam la jóge dugg sama nopp man ak moom rek a toog mu ne ma damay respecter calendrier républicain bi acte bu jot dinaa ko def bu jotee ñu convoqué ko électoral dinaa ko def yaa ngi dégg dañu war a dem cee ay sama responsabilité mooy def de la sorte que ñu dem ci élection yu baax yoo xam ne kenn du contesté li ma bëgg nag mooy benn Bokk Yaakaar gañe li ci des nag kuddu kafe la borom ma koy suukar loolu man maa ko wax loolu maanaam ci gàttal suñu gars yi ñoo war a jël seen responsabilité xam ni réew mi defuñu fi waxuñu fa lu ñaaw ñu taxaw xeex pour gañe parce que xëy na moom dafa jàpp ne. gaa non non dama lay dama lay wax rek non damay expliquer rek du ma interpréter dama lay wax rek man ñu taxaw xeex pour gañe tu comprends foofu la affaire bi toog. mais lui c'est le c'est le directeur de campagne du candidat moom moo war a nekk. le directeur de campagne du. d'accord loolu daal loolu daal moo tax képp ku ni Macky Sall moom moo ni nañu reporter man waxuma loolu honnêtement. mais ce que du Macky Sall. voilà parce que. benn mais par contre. Mhm. par mën na am. comment ça report mën na am fan la fan la report di jóge. ma jox la benn exemple. Euh, xam nga opposition bi def nañu recours ci cour suprême contre la composition de la Sénat hmm. cour suprême bu bu bu bu bu accepter recours boobu maanaam dissoudre Sénat bi report day am une modification substantielle du de la procédure dama ni la cour suprême déglu baax le ma la bu accepter recours bi nga xam ne moom la opposition bi def pour dissoudre Sénat sena ndax ñoom nee nañ décret bi nga xam ni moo fi teg Sénat bu bees bi àndul ak loi bu ko Cour suprême nangoo ba tas Sénat bi report de am par force. nan la report di amee lan mooy générer ce report là. processus bépp a yàqu parce que ci code électoral processus bi yépp Sénat moo ko war a superviser. yaakaaroon ne les gars se jouent de nous. je ne sais pas man dama lay wax droit droit laa lay wax de. d' accord mais bu report amee. mënuñu jàpp ne c' est une préméditation. de qui préméditation de celui qui a conçu et publié ce dossier ce, ce décret là tout en sachant que ce décret est attaquable préméditation de ñoo xam ne dañ leen naan atta on sait en politique on sait comment ça se passe fii Sénégal xam nañ dañuy tëj tëggee combine yi tamit. Ah am na ñu soufflé leen ci suuf. attaquer leen décret bi le le décret n'est pas régulier n'est pas légal cour suprême ñu préparer affaire bi gars yi reporté. waaw mais yow nag. est-ce que ce ne sont pas les hommes politiques qui se jouent de nous. léegi yow euh, lu tax nga jàpp ni combine combine ci naka. ma ne. Hmm. ici on sait ni ñuy tëggee combine politique yi. nan lañ tëggee combine. mooy li ma la wax. maanaam c'est-à-dire. Hmm. présidence de la République du Sénégal. kon kon da nga bëgg a wax ni. Macky Sall ak opposition bi ñoo tëju combine combine bi. ah non non dafa nang non parce que li nga bëgg a wax ni non attends parce que combine bi dafa bari échelon yu bari lu njëkk a xew mooy dissolution Sénat bi dafa am fu mu jóge maanaam euh, dafa am koo xam ne président du Sénat la Sénat c'est un organe consultatif maanaam Sénat li ko laaj kenn laaju ko pour muy émettre ay abi dafay superviser processus président Sénat boobu dem ci loo xam ne yoonam new ci amu ci benn compétence mu bind ci fekk Sénat boobu sax périmé woon na bu yàgg c'est-à-dire heure bañ non mais c'est la vérité. Ah, cest ma pare moo bàyyi Sénat bu mandaam passé. may mun a Ndour Faye teg maa dégg opposant yi di kaas nga bàyyi ko fi. kan moo def loolu may mun a Ndour Faye déglu ma rek ba ma àggale ah? bi loolu amee. bi loolu amee euh, pouvoir bi réagir ñu def décret pour tas Sénat bi defaat beneen décret pour defaat beneen composition du Sénat opposition bi ni d'accord ju ci lii dem attaqué affaire bi au niveau de la cour suprême nga ni combine la fan la combine bi jógee. Euh, kon combine bi moom li ci nekk bari na. combine bi ak kon mën nañ jàpp ne combine bi fa mu fa mu jógee bari na. Hmm. Sénégal muy Sénat muy ARMP muy beaucoup de yoo xam ne dañ leen tëj ci ay mandat pourquoi ak li fi am ci xeltukat yépp ñuy bàyyi ay structures seen mandat dépassé ñu nekk dans l'illégalité totale ñuy ñu ñuy continuer di exercer ñu noppi après Doudou Ndir émettre un avis bu ñu jàpp ne neexul nguur gi ñu ñu ñu démettre ko tasaale Sénat li fi am ci ay xeltukat yëpp ak li am expert ci présidence de la république rek yëpp nan lañ mën a defee décret décret bi di montrer des aspects euh, attaquables opposition bi dem attaqué ko tout ça ça laisse réfléchir et s'il y avait une volonté con nu mu tudd une idée consensuelle de report parce que am na ku fi toog ka xaw ma Souleymane Diop nee na opposition bi ñoo gën a bëgg report parewuñu mais mun nañ jàpp ne aussi Benno Bokk Yaakaar bëgguñu bëgguñu présidentiel am ñoom tamit xëy na ñoom tamit parewuñu wala wóoluwuñu seen bopp. waaw léegi may mu na li nga bëgg a wax yëpp man je veux lan mooy sa problème. non dama la ne ndax bu ndax bu bu Sénat. bu bu bu Cour suprême. Hmm. nangoo recours opposition recours opposition bi. Hmm. ñu tas ci Sénat. Hmm. war a procédure bi est-ce que sénégalais ils ne sont pas en droit de se poser la question est-ce que report bi du combine bëre et dinañu indi Sénégal lu masul am. dans l'histoire démocratique de ce pays là. mais comme bi ñu bëri entre opposition ba pouvoir kay soxla wu ñu jaar ci ay cour suprême. opposition ba pouvoir bu ñu d'accordee ni dañuy reporter ñoom ñëpp ñu def un report consensuel loolu kenn mënu ci dara. et soxla woo combine. et les sénégalais dans non dama lay expliquer ah je t'explique cest doon am kay jarul combine si toutes les sensibilités politiques au Sénégal se retrouvent ñëpp d'accord ni nañu reporter élection présidentielle looy combine. bu pouvoir beeg opposition consensus boobu moom mënul am. ça peut être deux trois pôles politiques ñu d' hmm. mais du ñëppay d' accord. Hmm. peut être que c' est pour waxuma ne loolu mooy am. Hmm. mais bu report amee à la suite de ce recours là. Euh, les Sénégalais sont en droit de se poser des question mais mun na nag wax la benn affaire ci champ politique bi fii ñi nga xam ni yàkkamti dañ pour dem élection dañ leen di compter. mais justement. est ce xam nga loolu. parce que curieusement xoolal par exemple élection yi li ci des da ngay mel ni dara xewul Sénégal. ça fait xam nga lu tax loolu. Hmm. parce que kenn parewul. de de d'un côté comme de l'autre. voilà kenn parewul. et puis en privé. candidat yu bari boo ci toog ak ñoom ak quelques petites exceptions près naan ne report bi moo baax. dafa mel daal gars yi dañ doon seetaan rek ba affaire bi xëy suba rek élection yi ni tell quoi dal seen kaw te loolu li koy expliquer aussi mooy tout ce qui s'est passé ak incertitude yi nekkoon ci élection bi jusqu'à la dernière minute xam nga Macky Sall dafa yeex a wax Sonko à la jusqu'à la dernière minute ñi ngi vaciller ba xam dina nekk candidat lu du nekk candidat maanaam ñaari clé yi ëppoon doole ci émission bi ci ci élection bi à la dernière la leer pendant ñëpp ñu ngi doon xaar xëy suba affaire yi ni tel affaire yi ni suba la c'est ça le problème est-ce que un report de la présidentielle est-ce que mënul préjudiciable à la situation politique à la politico-économique de ce pays-là. bon léegi. est-ce qu'on peut s'offrir ce luxe-là. xaar xaaral ma expliquer la euh, élection bi am ci respect calendrier républicain moo war a am. te moom moment bi ba moment bi may wax ak yow nii loolu mooy am dégg nga wax bi li ma la wax nii man dama xalaat xeltu en tant que juriste ma wax la loolu tu comprends parce que booy analyse su des fois nga reculer nga xalaat. mais mbaa xam nga ne nit ñi jàpp nañ ne yow doo wax ci nen tamit. du ma. mbaa xam nga ne nit ñi dañoo jàpp na yow doo wax ci nen. du wax ci nen mooy lan. <laughs> doo wax ci nen. mais mën naa réfléchir xanaa. <laughs> xanaa boo toogee 40 jours sa yaay gaañu ngay nga koy nga koy ñaanal ak yooyu. nga toog ba caa nga xalaat ci réew mi wala. fii nii. Ah. lu ñu ci wax bu ñu yeewoo suba. Ah. <laughs> dañ naan combine bi bañ koy tëgg may mën sa fay sa fekkee da ko gars jàpp ñu ne yow da ngay wax ci nen de. Ah. dañuy jàpp ne loo wax rek. Hmm. am na lu ñu ci mën a lumba ci. Hmm. waaw et ñi doon dute ne report am na yow su yow di nga conforter seen doute. ah bon pourquoi waaw non man dama wax xam nga man ñaari affaire laa la wax. xam nga ñu bari dañ naan Macky Sall moo ni nañu reporté man loolu bi ma ci bëggee am lu reer damaa toog ak Macky Sall mënu ma reporté wu ma néew ma kenn mu reporté kuy wax mooy wax waxu boppam. Ah, Macky Sall kay mooy non defal nang non defal nang dama lay expliquer non non c'est important quand même. parce que ñu bari dañ naan way kii moo koy yëbba maa ngi tax sax jur Diop ñu naan naar bu ndaw bi lu mu dégg xaw ma lan ci naar bu mag bi et cetera mais demul noonu parce que man xam naa non non xam naa ne Macky Sall su bëggoon reporté man mën na ko wax seq nañ loolu. mais waxuma loolu daf ni ma reporté wu ma te li mu waxoon aussi laa gis parce que délai yi daf ko respecté gis nga bi ñu waree convoquer le corps électoral daf ko bind est-ce que da nga wax bi donc euh, yokk ci ne ma man damay organiser élection yi mu doon élection yu mucc ayib su ma sañoo nag ñi ma àndal ñooy gagné mais ku mën a gagné naa def passation de service bi te su ma paree du ma gêner kenn ci dara parce que mënoo jiite réew ba pare après nga nekk fa di yàqal wala ngay gêner ki nga xam ne moo la wutu te loolu loolu moo am farankulaayan léegi man li ma la wax sama analyse la en tant que juriste parce que man damay toog et puis toog naa plus de quarante jours yoo xam ne dama toog jël recul damay gis te li ma la wax nii bis bu amee li ma la wax moo ciy topp bis bu cour suprême annulé décret bi nommé membre Sénat yi tout le process va être repris à zéro te report élection day am loolu man maa la ko